bi affaire yi tàngee gis nañu que ne ñu bëri ñu doon wax naan nañ leen attaqué nañ leen def nañ neen def là ils sont pas euh, ici au pays ñu ngi diaspora dans la diaspora xëy na exemple yi ma ci joxe ñaar ki ñu naan Akhenaton ak ki ñu naan Tunkara des gens yoo xam ne seen ay cadre dafa dafa jéggi dayoo ñooñu tey ji dafa mel ne yéen da incapable par rapport ak impuissant plutôt par rapport ak tout ce qu'ils euh, peuvent causer comme comme danger ci à pays mais vraiment moom Mamadou wax mu lu am solo man ay Aïssata Sall bi ma dégg ñoo naa fa ma ne ko Aïssata Sall madame la ministre dëkk boo gis loi yëpp benn ni loo code pénal est là. Mhm. l'acte de violence. appel ah non dañuy ñoom non bul wax loolu bul yem ci loolu. am na ko xam ne xam naa turam taay. mooy kan mooy mooy mooy lalan lalan seen moom la ñuy wax jiji mooy wane ay écran di saaga ñoom sëriñ Muntaxa ay sëriñ Bass Abdou Khadre. Mhm. di jël ay photo di ko monté ak ay jigéen lu kenn kenn mënul nekk li mhm. di saaga sëriñ si. Sokkum nekk suñu réew la nekk. non mais ñu may dëgg mi nga Aquitaine naa ko yow jii ñëw di la jëli ci laa bokk. Hmm? ambassadeur France jàppante naa moom. mën ko yow dëkk da nga mën a yor benn dëkk. ay nit nekk fa. même tey bu ñu ay français am der yu weex lu ñu am sax. yoon mayu leen ñuy saaga ay nit daal et puis loolu wax loolu jël xaalis. ji la wax dem nañ ci kër euh, député yi monsieur Waare ngi nii. photo bi ngi nii njabooto bi nga nii. rey leen siif leen seen ay jabar mais ñooñu. maanaam ambassadeur ko ji c'est des actes à moins que yéen ngeen nekk ay complices. Mm-hmm. kon loolu nga wax ni lu am solo la te maa ngi interpellé madame le ministre des affaires étrangères. Mm-hmm. le garde des def na ay mandat d'arrêt international. donc yaakaar na ñooñu kii di Jiji kii di ak Tunkara kii Tunkara. Mm-hmm. ak Mola Morgan. moom nee moom Espagne la yor xaw ma kenn lu ko dara. ko moom saag yi muy saaga sax loolu laa ma ne ko ba moo amal ba léegi sax bu yàggee. iranien yi gis nga ñu mel ay talaafa lañu. yi nga ñu nga nekk ñu xam. suñu immigré yi. ak Zikrula. Mm-hmm. kon boo leen bàyyi dinañ def nii daañu mos a xëy suba. Mm-hmm. lu raw Charlie Hebdo bu ne mais métti nu menace. ba ne ko non li mën a am mooy lenn bu su yàlla defee mais réfugié sax boo ko nekk sax amoo sax droit. Mm-hmm. dugg ci affaire jàmm.